moo tax lu am doole la mu ni waaw wal faslu tufir bi xarfi naw maaha ka jaybaha adir lu doon cosaan nag na sabab bi taqaloog alif gi ni ki alifu bayaanin nga ni bayeenin waaye wal faslu tàqalee bi xarfin ci benn xaraf uxtu fira baale nañu ko aw maaha wala mu ànd ak haa ba nga xamee ni haa xarfu hams la amul xumbaay ni ki haa day mel na kon konte haa gi kontewul ah dana wax ca kanam ni wa faslul haa kala faslin yuat kooku kon ba tey jay ba haa alif gi li mu sore sore yaaja ñaari xaraf jaar na fi benn bi yaala du dëgg maanaam haala laa ni benn xarafa fa dox ah dégg nga ah waaw ñaari xaraf yu dox benn bi baala benn bi haala dégg nga benn xaraf bi yëgle nañ ko comme baa haa itam wa faslul haa kala fasla yuat tàqaleeg haa moom konte wul ndax xaraf xam su la rek sawtam dadul xumb dadul feeñ ni ki tey adir wandeelal jay ba hee ca ñey imaale jay ba haa ñu ni jay ba hee jay bu mooy baat xotti ku baatu mbubu boobu adir jay ba hee kon nag wal faslu bi xarfin waxidin uxtu fira naka noonu wala sax xaraf wa maaha ànd ak baatu haa ndax haa moom xarfu hams la sawtam dadul xumb mel na ne baa bi rekk a fi ne te wenn xaraf danañu ko baale du tee imaala nga ni adir jay ba hee ah kadaaka maa yalihi kasrun aw yali taaliya kasrin aw sukoonin qad qad qad yali qad wali kasran loolu dana ba tey danañu ko imaala naka noonu maa yalihi kasrun alif goo xam ne kasra ca topp ni ki kitaabin min kitaabin danañu ni kiteebin ndax alif gi kasra dafa topp ci moom kasra googu kat moo tax ñu naan kiteebin amaa boo nee kitaabun duñ ko imaala soo nee kitaaban duñ ko imaala waaye soo nee min kitaabin danañu min kiteebin ñooy imaala ci seen loxo maa yalihi kasrun aw yali taaliya kasrin wala alif ga dafa topp ci lu topp ci kasra dégg nga ah déedéet loolu mooy kitaabin laa bëgg a wax kasra kaaf gi taa ci topp alif ga topp ca kon alif gi yeli ya taali ya kin du dëgg waaye nag ba tey na nga fekk kitaabin di majroor ama boo ni woon kitaabun kon kiteebun duñu ko wax ndax jóge ci imaala dem ci daam moom jóge ci kasra dem ci daam dañoo niroo waaye min kitaabin mën nañu ne min kiteebin kon sababu imaala gi du kasra gu mujj gi foofu kazaka ma yalihi kasrun naxwu katibun wa masajidu jël nga ko aw yali taaliya kasrin wala alif gi dafa topp ci leneen lu topp ci kasra dégg nga dafa to ndiki kitaabun tey kitaabun alif gi dafa topp ci taa taa gi topp ci lu ñu kasra nga ni kiteeb aw yali taaliya kasrin aw yali taaliya sukoonin qad waliya kasran wala alif gi dafa topp ci dégg nga lu topp ci sukkoon sukkoon gu topp ci kasra aw yali taaliya sukoonin taaliya kasrin nahu shimlaalin leneen alifu shimlaalin ma ngi topp ci laam laam gi topp ci ak sukkoon sukkoon gi topp ci kasra li ko def kasra ga sore na waaye dafa mel ni ki dafa mel ni ki laam dong nga fi jaar ndaxte miim xara am na dëgër waaye sukkoon gi moo ko néewal doole su fekkoon lu fataa la kon imaala du fi am miim bi bu amoon xaraka rek fataa du fi am waaye nag sukkoon la fa huwa xafiyun mel na na kon la mel na ko ni silaalun rek mel ni miim nekk fi ndax sukkoon gi dafa li xafaa'ihi bi sukkoon wa fasluhaa taqale haa diggante sababu imaala ak la ñuy imaala yu addu kala fasla dañ koy compter comme fu dara ñëwul ba tax na fa dirhamaaka man yumilhu lam yusad dirhamaaka sa ñaari dërëm ya nga ni dirhameeka ana luy sababu xanaa kas rek daal gële dégg nga ko xaraf wu ñu sukkoon topp ca miim topp ca alif gi topp ca kon alif gi talaa topp na a dégg nga day raa dégg nga miim alif gi topp na ci miim miim gi topp ci ha haa gi topp ci raagu ñu sukkoon waaye wa faslul haa kala fasla yoon dafa mel ni haa gi nekku fi dafa mel ni da nga ni maanaa su sukkoon gi dafa woyof sukkoon gi dafa sukkoon gi moo tee raa gi am doole du dëgg haa gi it kenn kontewu ko kon dafa mel ni da nga ni dimee rek dima mel ni gi ni ndax sukkoon raa sukkoon waaye sukkoon a ko woyofal su xaraka woon kenn du imaala dégg nga gannaaw gi haa moom ma ngi fi moom waaye kon du ko compter waaye moom la ni wa faslu haa kala fasla yoxat ba tax na loolu xam nga waxoon nañu sukkoon gu tuddoon nañu affaire sukkoon la ko woyofal aw yali taaliya sukkoonin kon nag fa dirhamaaka man yumilhu ko ko imaala ngir kasra ga ca daal ga lam yu ad lam yu sadd kenn du ko wëlbati kenn du ko ne noonu dee su ko waxe ndaxte dafa sore ñu ni waaw waaye li jëkk ak sukkoon rek la li ci toppit haala laa yu atabar mel na ni miim dong nga fi jaar te kon waxar waxoo nañu ni fasaleeg benn xaraf kooku du ko yàq wa xarfu listila léegi noo ngi wax ci kaf lii fekk lii fekk wax nañu li ñuy imaala wax nañu ni sababu ama imaala am kasra la mbaaya léegi noo ngi wax ci lii tere imaala wa xarfu listila yakuffu mudhara min kasri nawya wa kaha takuffura inka ah ah wa kaha takuffura in kaana ma yakuffu bacdu muttasil aw bacda xarfayni aw bacda xarfin aw bi xarfayni fusil kaha ida qudima ma lam yankasir aw yaskun lisra alkasri kalmitwa amir wa xarfu listiclaa yakuffu dana fekk sababan muzharan sabab bu feeñ amma sabab bu nëbbu kooku ne xarful isti'la du ko mën a fekk waaye sabab bu feeñ ba min kasrin moo xam kasra moo ko waroon sabab imaala aw yaa wala yaa moo ko waroon a kii nee na kon xarful isti'la dana ko tere ni ki tuxyaan xayin googu xarfu mustaali la moo tere kenn dootu wax kenn dootu ko imaala waaye noonu loolu d'accord nañ ci bu dee kasra waaye bu dee yaa nag nee na am nañu koy imaala kat du dëgg ah moo tax tuxyaat boobu am nañu ko dagal nga ne tuxyeen te sabab bu feeñ la amma sabab bu nëbbu moom du ko du ko tere ndaxte imaala gi mooy tax ñu xam ni yàlla woon kat du dëgg aywa su ko defee kon ana luy xeefa lu tax mu dagana imaala ana sababu imaala ba kasra ga woon ca waawu xawiifa moom nag sabab bu nëbbu la léegi du dëgg ak ak daana yàgg fa nekkoon mu ni nag moom it mu daldi ni kon sa sabab muzhar lay feeñ tere daal maanaam sabab ka fii moom du ko nëm kasra gi nekku fi dégg nga waaye xaafa xaa googu taxut mu mën a teeñu imaala alif yakuffu sababan muzharan ah min ana ana loolu man dama dul gis li moo tax loolu min kasri naw yaa aywa seetal fa xaraja génn sababul xafiyu min al kasri wal yaa xayru zahir fi naxwi xeefa ak teeba fa inna sababa imalati al alif mooy al kasru ci xaafa dégg nga ak ak waaw moom moom yooyu dañoo feeñul moo tax imaala gi moo koy feeñal fa tajoosu imaala tuuma yakufu mudharan loolu nag min yaa waaw kasrin d'accord yaa nag nee na ah kooku nag d'accord uñu ci ndax lu mel na tox yaan al ya xayin gi tere ko faaw am nañu koy imaala tox yeen dana dagan sayyaadin dana dagan ñu ne sayyeedin ànd ak saat xarfu mustaali la rayyaan raa dégg nga wax dafa wax na ni wakada takufra rayyaan ak bayaat ñi koy imaala mën nañu rayeen ak bayaat moo tax bu dee kasara daal d'accord waaye bu dee yaa nee na d'accord uñu wax wasa takufra raa itam xarfu mukarrir la ndéem kasrawul bu kasra faf doon sabab bu gën a dëgër ci sabab yi kasra raa raagu fata mbaagu dàmm moon tax di wax na nga xam ne raagu kasra moom dafay gën a dëgëral sababu imaala li annahu kasratun mukarraratun ndax raa moom boo ci tuddee benn rek loo lu mu gàtt gàtt tudd nga yetti raa te yëgoo ra soo ko saddaa nag wa hiya ida shaddadtaha kathiru la ibnu barri wax ah in kaana su fekkee maa yakufu lii fekk baadu dafa dikk gannaaw alif ga alif gi jiitu ko xaala kawnihi muttasilan waqafa alayhi waqfa rabiata li annahu xaalun xaala kawnihi muttasilan aw fusila mbaa ñu tàqalee leen baada xarfin waxidin aw baada xarfayn baada xarfin waxidin aw baada xarfayn muttasil ah mu waqafa waqfa rab- aw baada xarfin aw bi xarfayni fusil niki xarfayni ah baada xarfin waxidin niki naaciqin xam nga diggante qaaf gi mustaadi ak alif gi ñuy imaala te dikk ci sabab bi ñëw ci gannaaw maanaam maanic bi dikk ci gannaawam wenn xarafa fa jaar lu dëgg ah su ko defee kon dana tax qaaf gi dana tax doo mën a tee wax niiq wala ñaari xaraf ni ki alifu mawaathiq la dox diggam ak qaaf gi ñaari xaraf saa ak yaa moo fi jaar waaye qaaf gi tax na doo ko loolu su dikkee ca gannaaw in kaana maa yakufu baada baadu baada al alif baadaho xam nga baadu qablu soo daggee mudaaf ilayhima te yéene fa maanaam wacc lafdu ba kon da nga koy dam mbinaal aw fusila baada xarfin dégg nga ni ki naaciqin wala xarfayni ni ki mawaathiq du teemu tere ko kadanaka noonu ida quddima su fekkee xarfu mustaali wa dafa dawlu ba tey dana ko tere maalam yankasir fii kasra wut su kasra woo nag aa kasra sababu imaala la daan doon kon nag dana suufee lafz ba suufe gog dootu yàq sababu imaala dootu yàq sa kon comme kasra nañu ko kasra gi mooy sababu imaala listilaa bi dootu ko mën yàq aw yaskun wala feeg sukkoonul moom xarfu mustaali wa isral kat kasri ci gannaaw kasra maalam yankasir niki nan niki saalix saalix saat mustaali la dégg nga ah déedéet maa lam yankasir moom xarafu mustaali wala wax niki saaxitin xana waaye kooku moo mujj déedéet saalix la gila ah kaza ida qud awaw ida quddima lan wa suñ ko dawloo maa lam yankasir ah ka saalixin saalixin kon saat gi tere na ko ko imaala doo wax seelixin ñu ne ah maalam yankasir feeg kasrawul ni ki xitaab wala ka ka tilaabin moo xit moo xidaabin ñooyam waaye kooku ñaa daatit mustaali la kat moo daatit day mustaali ka ka lan tilaabin aywa nga ne su ko defee kasar gi dana tax taagi du tee nga mën ne tilaabin aw yaskun feeg sukoonul ci gannaaw kasra ni ki mitwaa nga ni mitwee mitweein léegi taagi dawlu na mustaali la waaye sukkoon gi nag moo tax dootu tere kasrak sababu kasrak mim bi mim bi ñu kasra mi ji moo di kii taagi waroon koo man tere waaye sukkoon la nga ni mitwee dañu waxoon
dañu waxoon ci baabu imaala ay abxaas yi ñuy gëstu ci imaala dañu ca boole woon ba nu ne dañu waxoon ni imaala lañu la la ñuy wax ak la ñuy imaala ak sababu imaala ak maaniul imaalati ak maaniul maani mooy kafful kaff li nga xam ne moo daan tere imaala ndiki xarfu mustaali dafa am leneen lu koy tere moom it ba dootu mën a tere moom la ne wa kafu mustaalin waraa in xarfu mustaali ak raagu kasrawul xanaa fataa mbaa dam yooyu daan tere imaala la moo tax nga naan wa bisal qaraaru waaye doo xareeru lu ko def raagee ko def li mu kasrawul amaa raaguñu kasra mooy sababu imaala bu gën a dër nag mooy raaguñu dégg nga dégg nga ah moo tax daaru inna jannata wa daarul qareeri déggoo kasrak raagaa tax qaraaru qareeri wa kafu mustaalin kon na qaaf mustaali la qo lu mën a fekk imaala la ah moom qaaf ah, bu bu, ah, mu- waaye nag kafam googu kaf kaf mustaali boobu di xaaf kaf feg gi mu doon feg imaala feg googee fegu na bi kasri raayil xareeri dégg nga Eh, moo tax mu ne wa kafu mustaalin feg gi xarafu mustaali daan feg imaala sabab yan kafu dana ke- fegu moom feg googu bi kasri raa ci kasrak raa ni ki tey nga ne laa aj foo duma ñàkke kersa xaa- xaariman xeeriman xaarim xaarim ñu di wax xaarim mooy kuy fay bor danañ fi réer kuy fayu bor di moom moom ah, dëdd la wala boo xam ne dëdd la wala nga ne mushtarak la ka xeeriman laa aj foo laa aj foo xaariman nga ne xeeriman xayil mustaali la da daan fekk imaala waaye bara kasra fegu na moom mi daan fege wala tumil li sababin lam yattasil wal kaffu qad yujibuhu ma yanfasil ba nga xamee ni ñàkk imaala nag moo doon cosaan te mooy loxatu Quraysh dégg nga téere yi dul imaala qiraa yi dul imaala ñoo gën a méngoog loxatu Quraysh yii imaala moo gën a méngoog loxatu loxatu najdiya tamim ak ñu d- ñi ñu dëkkaloon ci réew yooyu ah, wala tumil bul kon nag bañ a imaala kooku moo doon cosaan imaala moo doon farau moo aajo sabab te bañ a imaala aajowul sabab wala tumil bul imaala li sababin ngir sabab boo xam ne lam yattasil jokkuwul ndax imaala génnee la cosaanam la yóbbu ko ci fara xurujun anil asli lil ilal fara wala yafalu zalika yufalu zalika illa li sababin qawiyin wa amma rujuu ilal asli fa yakunu li adna sabab lëf jële ko ci cosaanam day jafe sabab bu foora ko man ama delloo lëf ci cosaanam day war a yomb sabab bu tuuti mën na nit lu tuut mën na delloo waaye ci cosaan waaye lu rëy koy génnee ci cosaan loolu moo dal ah, imaala kon nag sabab balaa am doole jokk ci benn baat waaye su ne ci beneen baat néew na doole wala tumil bul imaala li sababin ngir sabab boo xam ne dam yattasil fii kalimatin wahida nekkul ci baat bi ngay imaala ndi dëgg ni ki ah, kitaabu kitaabu qaasim a xaaf maane la ah déedéet bu bëgguma loolu déedéet dama bëgg ne li zaydin maalun li zaydin kasrak daal gi mënoon na bu fekkoon maa dafa jokkaloo kasra gi dana tax nga mën ni mee ni ki imaat nga ni imee du dëgg ah waaye nag eh, sabab bi jokkuwul te mooy eh, kasrak din jokkuwul ci maalun ji yor alif gi ñu waroon imaal du dëgg wal kaff kaff mi nga xam ne moom ñàkk imaala moom dellu ci cosaan la yooji bu xoo mën na ko waral maayam fasilu sabab bu facc ni ki tey kitaabu qaasim léegi xaaf gi mën na tax kasra kaaf gi dootu mën a tax ñu imaala alif gi li ko tere kat mooy xaaf gi ci kanamam wal kaffu qad yujibuhu ma yanfasil ah ka kitaabi qaasin kitee bi dootoo ko wax ndax qaa gi ci kanam li anna tarkal imaalati huwa al asl fa yusaaru ilayhi li adna sabab wala yusaaru li gayrihi te mooy imaala illa li sababin muxaqaq wa qad amaalu li tanaasubin bila daacin siwaahu ka imaadan wa tala ka imaada wa tala nee na sabab wax nanu imaala wax nanu yi ko doon sabab kasra wala yaa wala alif gu ñu delloo ci cosaanam wala tumi waqad amaaloo imaala nañu lu bokkut ak loolu li tanaasubi ngir wut tanaan tanaasubul kalimaat baat bu ñuy imaala dikk nii bu am sababu imaala ànd ak beneen ak boo xam ni moom amu ko ñu faf leen boole imaala yëpp ni ngay xamee ni baatu munsarif danañu ko boole bu dul munsarif tax ñu sarfu xayrul munsarif ah ah wa ag na mu ko salaasilan wa aglaalan wa saciran ci jànginu naafi salaasilan ña ngi ko tanwi te te mafa wa wasnu mafaila kenn maalayen sarif la war doon waru am tanwi waaye aglaalan ji mu ànd ak saciran tax salaasilan wa aglaalan wa saciran amaa ña yam ci cosaan nag ni ki riwayatu xafs salaasila wa aglaalan wa saciran salaasila mafaila faalila yooyu yooyu wasnu maalayen sarif lay doon waqad amaalu li tanaasubin bila daacin si waaw ci lu dul sabab daaci mooy sabab amul lu ca woote lu ko sabab si waahu lu dul tanaasub ni ki imaada imaada am bi alif gi xëcc mi mi am na sabab mooy kasar ak ayin gi imee ah, du dëgg waaye daa da da alif gu ñaareel ga amul sabab xanaa tanaasulu benn baat bi rek maanaa tanaasub wut baat bi daal eh, nekk wenn wirgo bañ a am luy lu ñuy imaala ak lu ñu dimaada nga ni imee de dafa gën a yomb ci ñoom imee daa imee daa imee de da koo gën a yomba tudd ak tala wal qamari ida talaaha ña koy imaala danañu wax taleeha ña koy imaala waaye du qiraatu naafi da- danay imaala waaye yooyu jokkaloog ha su amul raa kenn du ko imaala maanaam xanaa lu mel ni min dikreeha lii ko jiwoon jiitu woon haala yasalunaka an saati ayaana morsaaha fima anta min dikreeha ila rabbika muntahaaha innama anta mundiru man yaxshaaha lu lu am haaha ci qiraatu naafi duñu ko imaala ci riwaayatu warsh mi imaala li mi imaalaal naafi su dul lu mel na dikreeha raagoogu di xarfu mukarrir te fataawul kasra dammut loolu kat mooy sababu la dégg nga waaye nag ñu imaala bila daa in si waaw ni ki imeede ak tala wa duxaaha ki nga duxaaha moom kenn imaala wu ko wal qamari ida talaaha lu tax ñuy wax taleeha jalleeha moom mu nga xam ni moom am na sababu imaala alifaam day dellu ci yaa ak yax yaxsheeha min al xashiyati alifam yaa doon cosaanam jalleeha ah min jallaahu yu jallihi alifam day dellu ci yaa yooyu am nañu sabab waaye talaaha min talaa yetlu laamam waaw la lu ñu ko imaala tanaasub mooy ka imaada ak talaa ci fi qawli talaa ida talaaha am nañu koy imaala ida talaaha onaar wala tumil ma lam yanal tamakkuna doona samain mis gayraha wa gayrana wala tumil bul imaala maa li fi baat boo xam ne lam yanal amul tamakkunan ak tamakkun maanaa doonul lisim juñuy liraab mutamakkin mooy lisim juñuy liraab xam nga ni lu amul tamakkun nag kenn waru ko lu ñuy bindaal dégg nga waru la waruñu ko imaala lu dul ci sama rek waaye du qiyaas lu ñuy liraab dong la ñu war a binaal moo na doona sama in ci lu dul naqlu anil arab xanaa loo dégg xayraha lu dul haa ak naa waaye dafa yelloon gon misla haa wa misla naa rek wala tumil li sabab maalam yanal tamakkunan bu boobaa mën nga ne xayra haa wa xayra naa danañ yuridu an yadriba hee imaala haa te haa mabni la damir la ak naa yudribu yuridu an yadriba nee ñay imaala danañu ko kon haa ak naa dana dañu ko hee ak nee tey xam ne li si mab nii lañ loolu sama moo ko andi moo tax bu ne doona sama in ci lu dul dégg ah waaw ba tey man nga ni doona sama in ci lu dul da nga koo dégg lu dul haa ak naa ñu ne ko waaye haa ak naa itam dañoo dégg seen imaala noonu rek nde du xiyaas moo tax su noon su noon doona sama in misla haa wa misla naa lay gën a leer su ko defee ah wal fatxa قبل كسر راء في طرف أمل كللأيسر ملتك فالكلل وأجس دغنلال هادير أمل إمالال الفتحة فتحة ألف نيكوشا قبل كسر دينغ قبل كسر راء لجيك كسر راغو نيك في طرف في فيغو بات را حرف مكرر كسران بمنزلة كسرات دينغ أمل إمالال فتحة bu jë bu jiitoo fataag raagu ne ci pegg waxunu bu jiitoo dàmm ga dégg de mbaa fatxa ga déet kasrag raa la jiitu amil imaala ko ka qawlika mil jàngal yow sama waay lil ay séri jëm ca la gën a yomb lil ay séri nga ni ay séri kasrag raa gi moo am doole ba tax ñu imaala fatak siin si soo ko defee tug fa fegaleef la alkulaf ay coono demal ci lu gën yomb yàlla ñu fegal la coono yi jëfandikoo yu jafe kada alladi talihi hattaanisi fi waqfin ida ma kaana gayra alif kada naka noonu des na imaal alladi li nga xam ni talihi day topp ci moom haawu taanis fii waqfin ci tangi waqfu waxunu tangi waslu ndax haawu taanis soo dee taxaw niki nicma ak rahm ra rahma du haagu sukkoon lay doon su ko defee mu niroog alif day daal di niroog alif ndax maxraju kii amma bu fekkee waslu la taa lay doon kenn du imaala waaye boo dee taxaw rahma ñay imaala danañu ne rahme ak nicma ñu ne nicme man de loolu defe naa mooy li may dégg ci xiraa ulama yi seen kaset yi le dama ci dégg lu bare ni ki kaset yi nga xam ne mooy kaset yi siiri alquran seen jàng kasrak suuf xaagu sukkoon topp ca dañu koy imaala bihi sax buñ fay taxaw be la ñuy wax rasuli rasule boo ko doon boo leen tegoon léegi dégg ko foo ko fekk man dafa mujj ma jaaxal ma xam naa lii tax ma xam ne loolu ci loxo arab yi la bokk ci loxo arab yi la bokk xam naa dafa am ci xuraaw yi ñuy def noonu mu ni kada naka noonu alladi la nga xam ne talihi day topp ci moom ha tanis fi waqfin ci waqf danañu ko def ni ki nicme ida maakaana bu nekkee la xaaga topp ci moom xayra alifin du alif wuteeg baatu salaa ak zaka xaag xaaga guñu sukkoon la ndax ci waqaf kenn du ko def taa waaye nag alif la kon duñu ko imaala dégg nga ah nga qayyima qayyimatun nga ne qayyime nicmatun nga ne nicme rahmatun nga ne rahme mabsuusatun mabsuuse moom la ñooñu di def dañoom dégg nga ndax haawu tanis ci maxrajam mooy ni moo niroog alif rek moo niroog kii looloo tax moo niroog xarfu kilo bi amma taa moom sore na lool imaala dégg nga tasxiir tasrif